laa ilaaha illallaah man damaa xamul man man man Jogay Seen man tout tànk yi ma yeb wala sénégalais yi ma yeb wala amateur ma yeb xam-xam bi ma yàlla may yéen waxu leen ma nekk directeur école ba no sayam waaye ko tase ma naan eh, Jogay Seen ay boo nekkoon ay boo nekkoon gardien école ba di garde xale yi eh, yéen defu leen ma directeur xale yi di inscrit ci man ma teg samay sartu yi leer nañ di dogal wala ngeen def ma professeur de chanson loolu sax au moins ndax man doomu béykat jàng naa way wala gymnastique yooyu yëpp sax sama for la waaye de gardien taxaw ci buntu école bi di contrôler booy ku ci yor mburoog ton ak ku ci yor 32 pass ah ku ci am kayitu judd ko amit kayitu judd. attan naa fa dóor booy man xam naa tout yi dañu fay romb di ma kali naa ma tonton jógee ñëw nga ah dama ne bés bu ma nekkoon directeur école Nozaim règle mu sévère laay teg. élèves yi la ñuy ñëw di wàcc heure sept heures jusqu'à vingt heures ngeen wàcc ñibbi cours continué amul ñibbi sa kër de cours continué di heures du matin vingt heures ci guddi ba pare booy boobu def ambiance ci école bi damay fàttur bi tës booy bi su ma ñëwoon dama ko tës ci biti mais nag boo fa jëlee tës day manqué ambiance de te xale yi dañuy soxloo tuuti ambiance daal ndax njàng mee tax bëgguñu stressé xale yi moom zéro stress la ñu war a dund waaw de façon moom yéen sénégalais yéen ñi nga seen la gardien de école ay su ma nekkoon gardien noo saa yem waxuma ne di contrôler tout le temps ki professeur lañ njëkk a contrôler ku ci ñëw dinaa xam yow ci kër aaw ba ay woon démb wala kër ñaaral ba nga ay boo ay kër aaw ba dama naan dama ñibbi suba. moi je m'appelle Virginie Ndiaye mais on m'appelle Jini. ñun kontaan nañu trop am na suñu école. en moom baax nga. Ah, yaatu nga. Mm-hmm. wàcce nga sa bopp nekkoon fi di garaaw garaawlu. ah waaye man bi si tey kon boog gars yi dama ne bàyyi leen ci xel gis naa ne ñaa ngi wax gardien de l'école le directeur Jogay Sène le professeur de danse professeur de gymnastique ba ci sport sax eh, ba ci sport Jogay Sène professeur de kung fu yii yëpp mën ko indi ci école bi ay kung fu ay tai chi nga yooyu yëpp mën na ko indi mais nag vraiment gardien moom ah <laughs> maa ngi jégul daal.